loolu arrangé wuñu on est un pays endetté. Hmm. on est un pays boo xam dañu soxla stabilité pour liggéey pour avancé hmm. man li ma gëm mooy dialogue cohabitation mooy indi transparence hmm. gars yi bu ñu yor esprit chef nañu yor esprit coordonnateur. su yoree esprit coordonnateur xoolal di nga mën a liggéeyandoo ñëpp. te fii koo fi koo fi koo fi convaincre ci texte boo xam ni. pour arrangement Sénégal la dina dina dina adapté wu. Mhm. mais problème bi li ko tardeel tardeel ba coow lii boo bëri xam bi ñuy wax ci DPG beeg léegi yàgg na. Mhm. Mhm. parce que ultimatum bi moo ko moo ko moo ko tardeel. parce que tamit gis nga gis nga gor doo ko offensé yow koo xam ni. koo xam ni moo la gën palin. yow dañ laa nommé moom dañ ko fal. seen institutions yi dañu ni ñaari institutions yi sont séparées son indépendant ba pare nga jox ko ultimatum. loolu day da lay frustré donc pour man loolu mooy erreur bi te Sonko man waroon na am sax modestie wu génn mm. euh, jéggalu ci expression boobu on parce que Babacar Ba soo soo gisee texem bi. Mm-hmm. daanaka waaw forum du justiciable daanaka daanaka loolu la wax. Mm-hmm. comment nga wax na Sonko na sursoir ultimatum bi. Mm-hmm. député yi ñu ngi def mouvement. pour avancer. léegi nag nañu nañu moytu en tant qu'autorité nañu moytu di def erreur de communication yooyu parce mm. que. parce que ce que ça vaut c'est trop ça ça ça va nous trop cher. Mm-hmm. li mu ñu njëkk a mooy annulation débat orientation budgétaire xam nga loolu. Mm-hmm. loolu du du lu rafet. Mm-hmm. mais même gars yi li ñuy wax ni sax bay wax ni dañu bëgg créer loi boo xam ni pour président dootul tas assemblée. man loolu d'accord naa si. parce que loolu day day day day day aller à en connivence avec la séparation du pouvoir. mais su ñu dindee loolu nu ñu dindiwaat tamit promulgation de la loi. parce que tant que ñu ngi octroyé au président en tant que ñu ni président bi promulgué promulgué wul loi bi loi bi du entrer en vigueur mm-hmm. loolu séparation du pouvoir di pouvoir amatul foofu mm-hmm. donc loolu laa ci bëggoon a wax mm-hmm. jaajëf jërëjëf euh, Serigne Abo Mbacké Thiam dégg yaay sunu gantee tey ji